nii la jullit war a mel jëfel sa diine foo mu ti nekk waa ji dafa jox soona si loxo si mbooloo mu ngantal lan moo tax loolu ndax loolu la ko diineem jàngal bu jëfee ko donte nit ñi ñu ngi koy gis donte dafa nekk si dëkk boo xam ne nekkuñu sax ay jullit waaye diine moom moo ko jaral loolu kon nit ki war ngaa fonk sa diine war ngaa jëfee sa diine te nga xam ne borom bi subhanahu wa taala mu ne udxulu fi silmi kaafa mooy na dugg si diine bi yépp